jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun ci seen senevision point com nuyu nañ leen jaar leen rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi xam ngeen ne Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ginnaaw coow yi fi amoon ba lu mët ëpp fukki doomu aadama ak benn ñàkk ci seen bakkan Bougane Gueye Dany ginnaaw bi génn na lu toll ci fukki million ngir jaale ko njabootuk ñi nga xam ne dañoo loolu woon ci manifestation yi fi amoon ba ñàkkoon seen bakkan moom Bougane Gueye Dany niki démb amal na ay tournée ci diwaan bu Dakar ci Kër Massar ak fi nga xam ne moom di yëmbal ginnaaw bi nag ni ki tey ji Bougane Gueye Dany daal na ak ji wutali fële nga xam ne moom moo di Bignona ngir jaale ji njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo lor woon euh, foofu ci ginnaaw manifestation yi fi amoon moom sax bi muy dem de jaar na fi nga xam ne mooy kër yaayu Ousmane Sonko ndokkeel ko sargal ko sàkku ci moom it ñaan euh, ginnaaw nag ci fàttali manifestation yi le mi ngi amoon ginnaaw bi nga xam ne Adji Sarr daal nay tuumaal viol ki nga xam ne mooy njiital Pastef di usmaan Sonko ba ñu ko ci yoon ginnaaw bi kat enquête Ousmane Sonko yoon daal di koy teg loxo ci yeneeni mbir yoo xam ne kat jàpp nañ ne mooy trouble à l'ordre public ak li ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moom lañ ko doon toppee bañ placé woon ko li nga bi kat réew mi fenn fu nekk daal di yëngu ndaw ñi génn di amal ay manifestation ba ñu bare bari ñàkk seen bakkan ñu bari ñoo xam ne sax de dañoo wax nañ leen a dóor bal ñu faatu ñenn ñi nga xam ne sax de jotoon nañ leen a teg loxo ci manifestation yi la ak lu ko jiit woon tax na kat waa opposition bi la bëggoon a amal ab mars ngir ñi libéré leen waaye nag xale Euh, général de mourides ak yeneen xalif généraux yi ci réew mi daldi dinañ ci mujjee wis ndox mu sedd ndax kat ñaan nañ leen ba ñu mujjee bàyyi mars boobilee mbir yi ñu fas yéene koo dox ci suuf ngir ñooñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo muy prisonniers yooyu ngir ñu bàyyi leen jërë ngeen jëf mbokk yi ci seen kóolute ak bàyyi xel gu ngeen di bàyyi xel senevision point com